être mën nañ wax trois mois euh, déjà euh, tey ji boo doon jox note euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo di le tandem Ousmane Sonko ak Diomaye lan lay doon concernant ci acte yi nga xamante ne posé nañ ko. acte ah, yi acte. ah ok euh, mais note par rapport ak seen démarche depuis que bi ñu toogee ba léegi. Mhm. jàpp naa ni c'est positif. waaw d'après mois gis naa ni li ñu jot a commencé def c'est rassurant. Euh, parce que depuis bi ñu toogee ba léegi maa ngi gis euh, le président de la république en l'occurrence monsieur Bassirou Diomaye Faye il est en train de poser véritablement des actes tellement importants pour cette république surtout nag loo xamee ni que euh, daawuñu ko gis ci régime précédent surtout le régime du président Macky Sall parce que bi mu ñëwee dans un premier temps am na loo xamante ni une volonté bu nga xam animé woon na ko def na kéem ak kattanam pour que cette volonté là soit une réalité te de plus volonté boobu mu ngi koy mu ngi koy mu ngi koy mu ngi koy jëmmal ndànk-ndànk parce que bi mu ñëwee la question bi nga xamante c'est une question tellement fondamentale bi nga xam dafa yàgg animer sa volonté ay jéego ak ay yoo xamante ni moom ak son régime ñu ngi si def ndànk-ndànk parce que depuis boobu léegi on a vu des rapports ci yoo xamante ni daawul génn ci place publique bi ñu ngi génn au niveau de l'administration également dem nañ ba Euh, euh, adressé na une correspondance aux agents de l' administration pour rappeler leen véritablement éthique ak déontologie bi ñu war a mën a nekkee y a des systèmes de pointage yu ñuy wax entre autres li xew ci domaine foncier bi pour deux mois arrêté nañ travaux yi pour saytu la nga xamante ni du woon gestion bu baax euh, ñu xool véritablement lan moo ci dëng pour ñu ñu rétablir ko assise de la justice def nañ ko barki dem di waxtaan pour tirer ay conclusions pour gën a mën a perfectionner li nga xam ne ni que suñu droit pour rendre ko beaucoup plus euh, efficace je pense que loolu c'est des démarches tellement tellement importantes boo xamante ni man jàpp naa ni c'est des actes non seulement anti-républicains mais actes yoo xamante ni mën nañu rassurer en ce sens-là en tout cas gisaguma euh, benn note bu bu bu négatif bu ma leen war a mën a jox en tout cas ce qu'ils sont en train de faire c'est très bon Euh, lu baax la d'après mois d'après mois jugement yooyu laa ci am yu positif euh, te buñ ci continuer aussi la nga xamee ni que moom la Ousmane Sonko wax muy par rapport à un gouvernement de résultat euh, il peut véritablement aboutir a un résultat comme ni ko président Ousmane Sonko l'actuel premier ministre daal di daal di taxawee sur le plan diplomatie le président Bassirou Diomaye Faye boobu ba léegi mi ngi dem mi ngi dëkk di renforcer suñu lien historique par rapport ak yenn pays fa mu tàmbalee mooy Mauritanie gi nga xamante ni sur le plan économique y a beaucoup de choses qui nous réunissent lu ci mel ni euh, sur le plan économique Grand Tortue Ahmeyim bi ak yeneen coopération yi nga xamante ni dañ ko seq en matière sécurité dem na ci yeneen i réew Guinée-Bissau si su région bi la njëkkee les zones du Sahel les états du Sahel du moins nga xamante ni keroog ba mu fa demee def na une déclaration tellement importante donc allant dans le sens véritablement de réconcilier les états du Sahel ak ñi nga xam ni que mooy CEDEAO loolu jàpp naa ni démarche la. yoo xam et sur la réduction des comptes ak rapport IGE fan lañ ci toll quand même. rapport IGE. fu ñu ci toll. Mhm. waaw mais xam nga xam nga loolu man jàpp naa ni euh, rapport yi waxoon nañ ko fi waxaat ko fi. c'est important de faire de publication par rapport au rap rapport yi nga xamante ni ñu ngi génn mais le plus important c'est que véritablement volonté boobu ñu am ba mën a publier des rapport cette volonté la soit une réalité une réalité mooy mu am aboutissement képp ku nga xamante ni tuddoon nañ la ci rapport bi ñu def ay audition def ay enquête jàpp ni rapport épingle na la donc kooku da nga war a dem ci yoon mu layloo ak yow donc daal jàpp naa ni parce que le temps c'est souvent des fois dañ koy wax le temps de la justice nekkul temps wu nit ñi euh, loolu c'est des appréciations mais daal jàpp naa ni daal de manière beaucoup plus résumée jàpp naa ni ils sont en train de poser des actes yu baax pour cette république et que bu ñu ci continuer mën nañ am un gouvernement de résultat. am na solo euh, président Lamine Gueye euh, euh, li nga xamante ne moom la nemmeeku moom la ñu teg depuis bi ñu fi nekkeek léegi ginnaaw peut-être mën nañ wax ne ne am na 60 jours yoo xamante ne ñu ngi ci di teg ay jéego ci yenn ay secteur d'activité par rapport ak li nga xamante ne jot nañu koo tegagum noo ko gisee ak note bi nga xamante ne moom hmm. nga leen di jox. mooy ñaari ñaari weer la je pense que ñaari weer quand dafa néew trop pour un euh, pour nga def sax xayma pour pour quand même un état mm -hmm. hein, qui vient juste de de s'installer parce que loolu la en fait l'état vient l'état l'état n'a pas encore fini sax de s'installer parce que boo xoolee ba léegi chaque mercredi il y a des nominations te ba léegi am na post yu bëri yu des déjà ci direction yi rek direction yu mag am na direction yu mag yoo xam ne ba léegi kenn remplacé wul ña fa ne peut-être que peut-être dina am ñenn ñu ñu fa bàyyi Euh, laalaguñu euh, yenn PCA yi donc yaa a énormément de poste yoo xam ne aussi c' est à pourvoir loolu day wane ni euh, peut-être que ñoom tamit ils n'ont pas fini vraiment de de s'asseoir moo tax aussi juger leen day xaw a prématuré quand même mais pour autant mën nañu natt yenn ci ay actes yoo xam ne teg nañ ko comme l'a di Serigne quand même il faut ñu jël en compte que ni peut-être tout est parti ci régime bi seen avénement Euh, à la magistrature suprême tout est parti de de Ousmane Sonko. bi nga xam ne peut-être lu mu jaay gars yi dafa yëkkati la xam ne j'ai fait tant d'années ci administration mosuma laal benn dërëm ku ma mës a jox na na ko wax je pense que loolu ça a été déterminant léegi nag loolu bu cheminer ba ñoom ñu ñëw au pouvoir day am exigence ci ñoom transparence dafa war a nekk loo xam ne tous les jours ah, dañu leen koy exiger parce que aussi loolu lañ jaay Sénégalais yi mooy jub pense que président bi falu bi mu ñëwee aussi da ko gën a dëggal ak triptyque bi mu mu bi mu jaay Sénégal yi jub ak jubal je pense que seen ñoom seen seen cinq yëpp ça doit tourner autour de ça waruñu ko génn en fait et jàpp naa ne ci actes yi nga xam ne njëkk nañ ko teg loolu ñu ngi ci par la par les rapports yi nga xam ne peut-être sénégalais yi daanuñu ko woon gis fexe nañ yenn yi génn am na yoo xam ne peut-être ñu jox nañ ko ñu ko war a saytu ñu saytu bu fekkee am na lu ci war a am ñu ko war a amal amal ko parce que aussi teg yëf yi ci yoon daf ci am solo parce que aussi boo xoolee peut-être régime bi fi jógee président Macky Sall li ko gën a peut-être tax mu am problème ak sénégalais yi mën nañ ne jóge na ci wàllu justice parce que ñu bëri dañu am sentiment ne dañoo utiliser justice bi pour tëj ay nit tëj ay nit tëj ay nit ba finalement peut-être ñooñu ñooñu ñu doon tëj boo defee la somme dafa bari ba nga xam ne sax dañuy nekk benn opposition boo xam ne yow doo ko mën a imaginer. Mhm. donc je pense que pour ces gens là régime bu ñëw ak li koy indi cest dire li lay indi na nga fexe parce que boo xoolee président Wade dina dina dina jafe sax nga égale koy peut-être ci ci ci ni ko sénégalais yi bëggee mais bi mu defee deux mandats après dañ ko teggi indi benn président boo xam ne tamit kenn xaaru ko woon comme mag Sall il n'était pas le favori parce que simplement am na lu sénégalais yi. waaw buggul woon ci gestion waat du ay liggéey du ay yooyu mais leneen la woon affaire justice la woon affaire làq doom dóor doom malheureusement président Macky Sall mi ñu propulsé pour mu mën a gérer lool bi mu ñëwee aussi je pense que ci côté boobu daf ci xaw a sooxe aujourd'hui ce régime là est dans l'obligation ci wàllu justice ñu réparer lépp li nga xam ne ay rëq-rëq la ñu woon donc je pense que ça commence par ces assises là peut-être que en terme de priorité loolu jox nañ ko priorité boo xam ne tey assise bi ñu njëkk a def assise la yu jëm ci wàllu justice ñu ngi xaar ak conclusion yi nga xam ne euh, jële nañ ko fa nan lañ koy mettre en application ba nga xam ne suba le ministre le premier ministre Ousmane Sonko ak le le le le citoyen bi nga xam ne moom la ñu gën a ñàkk xam ñooy yem devant la loi. je mhm. que ça c'est extrêmement important. important pour ce régime là te loolu. bu fekkee réussir nañ ko dinañ def pas bu am solo bu fekkee nag sooxee na ñu gis ne ci seen magistère li ñu